am na ci biir géew bi jëlal lim 2 lim 2 bu jaxaay Bata kii Bata Issa Pouye numéro 2 Issa Pouye numéro 2 su ma jumul kii yëmbal mara la jógee ah lim 2 Issa Pouye numéro 2 premier combat droit de cibler. Comme ni ma la waxee sama gars చెందుకంటే మెజారిటీ కింద గెలిన చెందుకంటే National promoter Morgu. Arate de la petite du disposition organisée.

Papoy daw na génn dafa jël coup dafa jël coup bu dal coup bu métti dal na ci digg géew bi am cam ñu gën ko am ci lim dal na ci digg géew bi Cheikhou Dieng mi ñu wax ak moom coach Cheikhou Dieng mi ñu wax ak moom coach Cheikhou Dieng mi ñu wax ak moom dafa jël coup bu dal moo tax mu daw génn dafa ci beneen bi ñëwaat na wala day dem ci médecin bi ah comme mu dem ci médecin bi dafa jël coup bu dal moom Issa Pouye waaw waaw waaw mi ngi waaj a siflewaat na jëlaat bi léegi mu siflewaat jëlaat seen diggante Issa Pouye moo jëloon ko bu dal léegi dem na fàttali ñu ñëwaat Bamba Thiam Bamba Thiam tur bi rek moo baax bëre waat mbaa dina bëre waat jël suuf bu dal nee nañ nag jàmbaar boobu dafa uti doole waaw nee nañ daan jàmbaar ah delluwaat na ci médecin bi day delluwaat ci médecin bi est-ce que dina mën bi est-ce que dina mën bi est-ce que nar ñu arrêté combat bi jël bi jox ko kii jox lim de mi ngi réer rek mi ngi réer rek daa ni instant bi wër na ko ni victoire bi dugg na daa mel ni dafa mel ni waaw mais benn coup jeexal na lamb benn coup jeexal na lamb Hypercube daan na fi waa des arènes benn Hypercube non la fa demee ah voilà voilà yaa gën a xam. ñëwaat Issa Pouye ñëwaat na Issa Pouye ñëwaat na Issa Pouye ñëwaat na. Issa Pouye non coup bee dal. xoolal bët bi xoolal bët bi ah oui vainqueur vainqueur en lim de Issa Pouye numéro lim de Issa Pouye numéro 2 waaw waaw waaw mais ah, waaw waaw. waaw mais coup bi tax coup bi tax kii ah, coup bi bloqué Issa Pouye ci la ko dóoree Dieng dafa jël suuf bi ci moo moo waral mu rek la daw génn non la ko demee suuf ci fii bu mu doon ci bi ñu jël irrégulier jël na ci avertissement mais ci instant il est incapable de continuer mais dañ koy disqualifié dañ koy disqualifié parce que xoolal bët bi bët bi dafa léegi bët bi dafa léegi bu ci jëlaatee beneen suuf mën na ko jural leneen te mbër dafa soxor mbër fu mu la doon ba nga blessé foofu la lay dooraat ah voilà il faut il faut tamit ñu mën a protéger mbër yi mi ngi noonu vainqueur nim de vainqueur ndeysaan coach Cheikhou Cheikhou Sène dem na jëli ko